ngi naan une fois élu Pastef n'a jamais imaginé son avenir politique électorale pour 2024 sans Ousmane Sonko Ousmane Sonko recalé Ousmane Sonko recalé <laughs> eh, ngeen teg Bassirou et il y a une frange de Pastef qui n'adopte pas Bassirou surtout les Sonkoïstes purs et durs il y a une frange de Pastef qui garde le silence Euh, par rapport à la candidature de Bassirou Diomaye Faye Pastef c'est un parti que je connais sincèrement bu ma la waxee dëgg Pastef liñ lay wax ne laan naan Ousmane joxoñu loolu sax du waa Pastef rek koy wax dañu bëri ñu koy wax c'est des sympathisants wala des gens yoo xam ne duñu duñu sax militant Pastef li mu ñaan foo joxoñ ñu dagg loolu mooy la réalité gis nga ba Bassirou Bassirou Pastef la bokk te nee naa la Ousmane il a tout fait pour que Pastef mu bañ a nekk moom kese sans lui aussi que le projet puisse continuer ci loolu la mas a nekk. y a une bonne frange qui se fait non je suis désolé loolu amul Maïmouna Pastef ñëpp adopté la candidature de Bassirou Diomaye Faye loolu man maa la ko wax te bu ma la ko waxee gëm ma je connais ce parti Bassirou fait l'unanimité unanimité oui si il fait l'unanimité mais Bassirou les ex candidats pour ñi retiré woon parrainage ñoom ñoo gën a porté sa candidature tey ñenn ñoo gën a porter la candidature de Bassirou Diomaye Faye c' est Birame Souleye Diop c' est Abbas Fall c' est El Malick et ñooñu pourtant demoon nañ retirer ay fiches de parrainage parce que ben dañ doon damier ah dañ doon jouer ak ak ak ak état bi ak régime bi. ñoom xamuñu woon ñun fu ñu jëm mais ñun xamoon nañ fi ñu jëm. y a pas que Ousmane loolu na sa xel dal.